asalaamaaleykum naa maa ngi lay nuyu bu baax euh, ku ñu gis fii tey ci de des Thiessois en tant que communicateur yu Thiès yi nga xam ne ñun Thiès danoo ñor. Mhm. ñu doon ay communicateur dëkk ci dëkk bi. amante nit ñi jàmm nag xam suñu cosaan dëkk xam njom gi fi ne. Mhm. waaye fan yi yëpp nag ñu ngi dégg ci li nga xamante ne mooy réseau sociaux yi di dégg ci ñi nga xamante ne mooy revue de presse yi ñenn yi sax def ko slogan euh, bëgg daal ni Thiès Thiès daal dëkku warkat la ci nitu Thiès nitu warkat la loolu nag lanu dul nangu tey lanu dul nangu ëllëg nag ñi nga xamante ñoo ne ci point de presse yenn journaliste yi nga xamante ni ratatata la ñuy def ñu leen di dégg ñuy wax am na ci ñoo xam ne sax dañ leen di ceebal ca suuf nanoo bëgg nu arrêté bu dee ngor bu dee jom bu dee fulla bu dee fayda bu dee ñàkk a mën a war Thiès la fekk baax Thiès mooy Kajoor di dëkku Lat Joor suuf saa nga nii suufas joor la Lat Joor tawlaa maa joor ñu koy bàkke kor joor ak joor ku amul jom dama ne mënoo fee dëkk Lat Joor fi la bañe woon ba maalaw gisul raay bi ba tey ba mu daanu deqale te bu ñuy wax histoire du Sénégal boo ci génnee Thiès mu des mu jeex tàkk indépendance Sénégal Thiès la départ premier président de la République du Sénégal Thiès waa la muy Léopold Sédar Senghor grève des cheminots bu ñu koy sumb mu tànk jër dans toute l'état du tiroir jàpp ba dem Mali Ibrahima Sarr ko jiite won Cees waa la warul ba tey tabarkalla macha allah ànd ak ñi mu àndal ak ña nga xamante ne ñooy honorable député Cheikh Dieye ne ca gannaawam Mantoulaye Diène fii la juddoo comme ni nga ko waxee léegi ak ñeneen ak ñeneen Thiès di dëkk noble di dëkk gor di dëkk boo xamante ni tabarkàllaam fa bañkat la ñuy doon ba ma ñuy dee raison politique tax na rek ah dugg ci gouvernement ba tey la Ablaye Wade danañ dugg di génn ba ni mu doone président Idrissa Seck visionnaire la bu xalaatee la mu xalaat xam lay jëmale réew mi kanam ba tax mu ànd ak président Macky tax ñu bëgg cee sukkandiku maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamante ne am na ñoo sax ñu ñu ni ñoo ñu bokk ci ñoom ni Thiès dëkk nooneel la wala dëkk warkat la maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu nee cëpp ci dëkk bi bàyyi na réew mépp Thiès gën a samp samp Madina Faalam Thiès la samp Madina Faalam dëkk tuddee Madina Faal Madina Faal dëkk ak Thiès waaye mu rafet lool gor àll bi taamu Thiès bu Thiès bonoon du ko tànn ndax koko dafa am lu Serigne Touba def ci moom fii dëkk Thiès gii la Serigne Bamba Xaadimu Rasul fasante woon ne kóllëre ak maam Alaaji Ahmad Baro Njëgéen Thiès di bañkat di dëkk bañkat place de France fii ñu taxaw lu ne xew fi mbañ gu am fi ngor nekk ci ñun jom nekk ci mun tabar tabarkalla Sénégal koo fi tudd wala ba ci télévision yi nga xamante ne ñoo ñu ngi koy tudd ci réew mi sax ñi ko jiite seen maam ay Thiès waa la ba ci Youssou Ndour maamam Thiès sa dëkk mate siré nga Thiès matee nga aaneen kon nañu bàyyi Thiès waaye naa lii du dëgg du yoon li ñu war a wax lépp moo du bari na Thiès waa ku koy sikkal sa bopp ngay sikk ku xas Thiès waa sa bopp nga kas lii li li ci réew mi boo ci génnee ñi nga xam seen maam Thiès sanu dëkk te doonoon ay buur doonoon ay garmi tuutee cay des damaa wax ni kilifa goo dégg ci réew mi ñu di koy wax champion muy ci football muy ci basket muy ci bëre muy ci njàng muy ci lépp lu mën a doon kees waaye ñoo ca raw damaa wax ni Idrissa Seck mi tax ngeen di wax naan daa war warul daa xam faay intérêt ne boo bëggee gis noble du Sénégal les nobles du Sénégal sont les Thiessois les purs di du Sénégal ñi nga xamante ni fu nu dem dans le monde entier bokk Thiessois lay doon Thiessois fu mu dem dans le monde entier bokk boo ne ko jàkk ci charisme am ni ko jàkk ci xelam mu rafet ni ko jàkk ci njàngam ni ko jàkk ci ay jëfam di nga xam ni kii Thiessois la Idrissa Seck njëkkul ci dugg ci gouvernement mujjul ci njëkk ci gouvernement Ablaye Wade daan dugg ak a génn keneen dugg ak a génn Idriss Seck nag visionnaire la dafa xam ay intérêt fu mu féete xam intérêt Sénégal fu mu féete Sénégal ko ñor réew mi ko ñor doon ko xañ ne nag ku réew mi bàyyi xel la nag ku réew mi bàyyi xel la mu dugg dans le gouvernement bu taxee yenn journalistes yi nga xamante ne c'est des corrompus dañ leen a jox alal di leen fay di leen jox alal ñuy wax ca suuf naan Thiessois Thiessois sont les plus nobles du Sénégal boo bëggee gis les nobles du Sénégal ñëwal Thiès les plus mûrs du Sénégal ñëwal Thiès. képp Dakaaru ak feneen ak feneen boo fa génnee boo génnee Sénégal Cees waay dara dootu fi des Cees waay ñoo nit Sénégal ñoom dañ koy xool gis si ñoom njàng ñoom ngay xool gis si ñoom yar ñoom ngay xool gis si ñoom tiire ñoom ngay xool gis si ñoom diine. ku mel ne sur le plan religieux. waaw Cees waayee man. waaw télévision yi nekk ci réew mi ak rajo yi nekk ci réew mi kat yi ngay dégg ñun gën leen a déglu plus écouté ce sont des Thiessois man la Thiès war newu fi kuy war lambil feneen war Thiès ñëpp a xamante ñëpp a bëggante am na dëkk boo xamante ne jege na Thiès ndakaaru gi am na ñoo xamante ni dañuy bokk benn immeuble koo ci laaj mun la xaw ma moroom ma jàppante booloo doon benn Thiès la fekk baax dangay nekk ba grand Thiès ñëw Thiès di laajte ku dëgg Madina Fall ñu yóbbu la këram solidarité fi la fekk baax booloo fi la fekk baax a benn ak jàppalante dimbalante fi la fekk baax noobul daal Thiès fii warkat amu fi kuy wuti warkat wuti ko feneen ñun tabarkaale suñu dëkk ñor suñu réew mi ñor Thiès du jëkk warkat ñaareel ba it Modou li nga ci yëgul mooy Thiès dafa am ay héros ay mag yoo xamante ne ay mag yoo xamante ne yu nekkoon ci dëkk bi ku ci mel ni Boubacar Sall Thiès waa la ku ci mel ni Ousmane Ngom Thiès waa ku ci mel ni ku ci mel ni euh, euh, góor gi Isaaxa Kanté mi gaañu ak Baye Daaxa Kanté mi génn àdduna bu yàggul ñu ay noobul lañu damaa wax ni ay ponkal rek ñoo nekkoon Thiès damaa wax ni Ibrahima Makodou faal bu CNT bu bu SNTS damaa wax ni ay noobul rek ñoo nekk Thiès Thiès booy xool ñi fi nekk ay kilifa lañu ay nit lañ ñoo xamante ni Ibrahima Makodou Thiès Ndéla Fall ay maamam doomu buur la. damaa wax ne fii ay euro rek ñoo fi tëdd damaa wax ne Thiès ay noobu rek ñoo fi tëdd kuy wax loolu da ngaa a xam li ngay wax parce que nag xam leen lu ngeen di wax waaye bu ngeen xam lu leen di tontu ku ñemee li ngay wax nag na ñëw jàkkaarloog ñun dinañ la wax foo bokk wax la yaay kan wax la noo ñëwee wax la noo dikke ñun ñoo ngi Thiès te fi la ñuy ne Thiès waaye la ñu gëm moom la ñu gëm ba keroog ñu fekki ba ba keroog ñuy dee Thiès waa la ñuy doon nous som très régionalistes nous sommes les Thiessois nous sommes les nobles du Sénégal les Thiessois sont les nobles du Sénégal lu leer laa la lépp lu nu bokkoon loolu du neex xool leen rek Idrissa dugg may leen Batma bu ngeen mayee Batma di ngeen xool ni ci Sénégal y aura un grand changement ndax Ablaye Wade bu formé ay nitam formé Macky Sall formé Idrissa Seck formé ñeneen ak ñeneen ñu ànd jëy téye mi mais réew mi day jëm ca kanam Idrissa bu ànd ak bu ànd ak sa waay ñu liggéey réew mi day jëm ca kanam bu duggee ba moom 6 mois élection yi de 6 mois présidentielle mais day génn. dem wutu lu ma dëkku dëkku nooneel la laay bañ a dégg. Cees dëkku bañkat la dëkku jàmbaar la loolu